asalaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum waa Sénégal vidéo bi dama ko def pour expliquer Sénégalais yépp ce qui s'est réellement passé entre Mo Gates Wally Seck Ndiaga Euro parce que wax ji bëri na gaaru Wally yi bëri na waaye ba tey benn sénégalais mënut taxaw ne ma nii la problème bi demee man maa leen koy expliquer zo yaa deux ans ci ginnaaw deux ans ci ginnaaw le 4 avril 2019 Mo Gates dafa organiser woon benn soirée tuddee ko Independence Day yéen ñëpp da ngeen ko bàyyi xel 2019 4 avril moo ko organise woon New York Wally Seck moo fa waroon la tëgg ba nu waxtaanee ci prix ba juboo benn juge dafa toog njaga euro toog moo gét toog moo gét compte avance am jox ko njaga euro njaga signé contrat bi léegi nag gars yi signé contrat ah signé contrat ak nit ki taxul nit ki nekk sa doomu ndey taxul mu nekk sa moroom taxul mu nekk sa frère taxul mu nekk sa mappandoo parce que liggéey la danga ko fay waali dafa fay waali pour waali dem liggéeyal ko mais du xaritam du doomu ndeyam nawloowu ko yaa ngi dégg léegi nag ba loolu amee dafa am lu xew ci diggante bi muy corona dafa ñëw corona bi ba mu ñëwee moom moo arrêté mbir yi ba li nga xamante si moom mooy soirée bi Wally Seck waroon a tëgg New York ci at moomu la amul léegi nag moo daan ne moom garaawul day tëggaat soirée bi am na sax ba léegi ñoo xamante si nii moo Gates yoreel na leen seen xaalis te joxugu leen ko ndax dafa waxoon ne da koy tëggaat ci diggante bi nag Wally Seck dem na fi amerique di génn di dem di génn di lijjanti ay business mu gis ne bu ñëwee Amérique du ko faale bu organiser du fa dem lijjantiwu ko xool ay mbërëm parce que du moroomam gars yi nañu waxante dëgg Wally Seck du moroomu moo Gates nekkul ne nit ki ah bu la waree tëggal programme rek wala nga invité ko fenn rek wala nga fay ko pour mu liggéey la dafa war a nekk sa xarit war sa doomu ndey non non du nawleem du nawleem liggéey lan séq loolu la gis nag mu daal di mer ci la woowee njaga euro ne ko programme bi ma naroon a tëggaat tëggaatuma ko dama koy annuler sama xaalis laa soxla mais joxal ma ko ku nekk Sénégal njaga euro daan ko ba nga may jox xaalis bi juste dafa taxaw nga toog ma toog léegi nag man duma ko jox ku nekk Sénégal damay dagg bee ñëw ba Amérique juge bi toogaat nga toog ma compter sa xaalis jox la ndax dama bëgg lu leer lii la ko Ndiaga Euro wax léegi Ndiaga esa bi bërki démb la dem Amérique mi ngi New York Amérique démb woo na moo Gates téléphone woo na moo Gates moo nekk fa di dof doflu yaa ngi dégg vidéo yooyu muy def ma mu naan sa seko beeg ay xaalis bi joxal ma ko kii yëg Ndiaga Euro kenn mësu ko dégg ci ay jaaxaan du ay tappale njaga nekk na ménagère boo xam ne mosoo koo dégg muy coow ci internet bi léegi nag moo dama lay wax benn affaire Wally Seck du la tontu Amady Badiane du la tontu kenn ku bokk ci famille Faramareen du la tontu man Boss Dey Negri man maay wax ak yow expliquer Sénégalais yi ñu comprendre yaa ngi dégg réew nga xamadi nga xamoo sa bopp xamoo sa xetu silib fay naa sa ndey ci tiktok bi fayaat sa ndey ci club house bi dellu fayaat sa ndey ci Instagram bi fayaataat sa ndey ci YouTube bi fayaat sa ndey sax ci WhatsApp bi nga ne daal fay nga dangay ñëw pour ci Wally Seck am buzz Wally nga mën a tudd jaar ci moom di jël wax ju bon di ko teg ci deram di jël wax ju di ko teg ci njaga euro dangaa tuuti bu yàq ñooñu seen der njaga du wax xol bu rafet la yor njaga dama naan yàlla du ko bind ba pare rek billaahi xol bu rafet kenn du moom doo tàppe ci YouTube bi ba gis ne Ndiaga Europe mi ngi dugg ci lu ñàkk fayda amul mënoo yàq deram Wally Seck mënoo yàq deram waa Sénégal nag yéen laay waxal problème bi nii la demee ba tey nii may waxee yéen Ndiaga Europe mi ngi Amérique di xaar lu mu jotee moo gën pour jox ko xaalisam mu nekk di def ay vidéo yu ñàkk fayda lu ne mu jël ko teg ko ci Ndiaga Europe teg ko ci Wally Seck fii la nekk di saraxu Wally pour mu woy ko barki alxuraanul karim bu fekkente ne Wally Seck way moo gën amal na ko intérêt guddi tey gi yàlla bu ma fanaan da ko doon saraxu nan ko dimbali ma ngir yàlla nga woy ma ba Wally Seck way ko nii la way wi demee Wally Seck amul intérêt amul intérêt di way moo gën fu ko xaalis fekk fa la koy bàyyi xaalisam Sénégal yi teg nañ seen bët dimbali ñu feebar ñi dimbali ñi nga xamante si nii seen loxo jotewul seen digg dimbali ñu feebar ñi ak ñu pauvre ñi loolu lay Wally di liggéey di dox ci social yow lan nga def Sénégal moo lan am nga xaalis du taabul baa doo boo fa jënd ah du école boo fa tabax doy hôpital yoo fa defar dara di rey nit ñi wax ay moo gét di waye xaalis fii dugg na fii gét yow Amady Badiane ak Armand Ndiaye fecckat yi rek bu ndajalee seen salaire yi rek yow yow waaye bu ma yëngal waaye non non dangaa yegg Wally Seck du sa morom du sa frère nawloowu te du sa doomu ndey sénégalais yi nag yéen tax ma def vidéo bii pour ngeen comprendre affaire bi ni mu demee mais dinaa defaat vidéo saaga ndayam Ndiaga franc guinéen manager de Rainbow Kid bàyyi sama téléphone bi ngay karang karang waaw léegi yaa ma tax ñëw avance bi Ça ne se passe pas comme ça. Pas besoin de l'argent. soxlawuñu lool question de principe la hmm? on est d'accord seen sakku bi ngeen jiital yable ko muy clash xam nañu lépp on sait tout you know on n'a pas besoin de l'argent dangay xool daayira yi da nga xool daara yi tànn ci benn nga jox leen xaalis bi nga jox leen avance bi on n'en a pas besoin. Ah, bi nga yore. compter ko ah, day jël temps loxo ngay compter you know machine ici sama jot bi yëpp ngay jël jot bi yëpp ngay jël compter loxo day jël temps kon dangay xool ci daara yi. ci kër diine yi fenn jox leen avance bi parce que naa ñooñ moom suñu ma ñaanalee diine bi ma ci yem fecc manaat du ma ko may on est d'accord et puis arrêtez tous you know man seen bàyyi la tu vois arrêtez tous vos petits trucs là xam nañ lépp nag you know amigo yes I'm ready. Okay, let's go. Let's go do the um, the counting again. I count the money, okay? Yeah. Sure, please count the money. That's what we do. It's good? Brother. Yeah, I see it happen. Check it, 100.